question bi. bàyyi ak waxtu wi tem bu weer bu weeru soppe bi te feeñee moom sax islam melokaanu bàyyi ci boobu jamono. gën a rafet gën a tabe gën a baax gën a bëgg yonent bi gën a bëggloo nit ñi yonent bi gën leen cee ñaax ba euh, baabale mi rek démb mi ñuy nettali nee na mbooleem njabootam. képp mhm. ku amaan soxla ci moom. boo gisee ne soxla si dafa xaw a rëy wala xaw a diis. Mhm. da ngay bàyyi ba gàmmu jege si. bu weer wu teree loo ko laaj mu jox la. bu weeru gàmmu teroo bu waaru gàmmu jalee loo ko ñaan mu jox la tax moo wax ne moom mës sa ñaan boromam loo tàllal loxo loxom delloo gannaaw noonu la meloon ci tabet lool la demewoon ci yonent bi dafay neex deret daf ko daan jaral mu jóg dugg ci biir kër gi naan maa ngi àbb néeg maa ngi àbb néeg maa ngi àbb néeg pour gane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañ ne gan ak suba mooy dalal gu ngoon moo waxoo tam na pour xir ci yonent bi ci weeru gàmmo ne képp ku fi doon jël sëb séet doo ganaar doo rey nag ngay rey bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés bu juddoom bi ñëwee bañ koy màggal bu kenn rey ganaar ci dëkk bi bu kenn rey xar na ñëpp rey nag juróom-ñaar fukki nag yi nga xam ne moom lañ ko njëkk a indil surafaaw yi indil ko ko mu jóge ko Murtani mhm. ba mu ñëwee ba bay ndeyam gis ko say dama su jànqa daf ne ko ah sëriñ bi lii de yàgg say njaboot yëpp mën ngeen cee dund ba ba ngeen di ba mu soob yàlla mu xëy fekk lépp bopp yi ñu dagg ko sébrit yi ba mu des ñett mu mel ne ko mer ah, Ibrahima lii nag mu tontu ko tontu ndey ak doom eh, yaramam daw mu ne ko bu fekkee loolu la na nag yi dem loolu nag moo fi nekk ba léegi naar gànnaar yi li ñuy indi ci gëléem ak li ñu indi ci nag loolu yëpp ñu ngi ko gisee ci baay ak tabeem ak bëgg yonent bi waaye nag bu dara desut lu mooy li naar bi wax wala habaza tilkal wasa macha tilkal huwayna hmm. su doxee tempam moomu jëm si ci fi nga xam ne mooy turbine bi muy tagee yonent bi àll sal sallallahu alayhi wa sallam daal di sol kaalaam googu nga wax naan mu ngi naan wala xabada tilka alimamatu wa siyaabul biidu ñu dar ko aw yi daal di sadd seen abyaat yi nar ganaar yi sadd sen abyaat yi wa waa yorobaa yi sadd seen yi nga deg ku melni malam tidiane mu tëggal ko garan bo xamne ne ngi naan ko afalat nujuumu hudan fama min muhtadin illa bi min abi ishaq su ko defee mu toog ci digg gàngu naayam gi ñi nga xam ne ñooy woykat yi li nga dégg Cheikh Omar sadd léegi mu ne nañ woy hamsiya nañ woy burda su ko defee mu téye li nga xam ne lii mooy taaru yonent bi di ko wax di ko wax di ko wax ba nga xam ne boo ko gisee doo gis dara lu ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne la nag bégal la ne la gàmm nag li tax ñu koy def bokk na ci la ci ëpp njëriñ mooy ñu nettali la ji koy yonent bi maanaam jotaayu bàyyi da ngay gën a bëgg Seydina Muhammad da nga koy bëgg déet mu ne doo ca yem waaw da koy bëgg bëgg bëgg bu la bàyyi nettalee yonent bi dalee ca siisa ba péncam saba tasee xale bu ne fi mu nekk nii mën naa gàmmu. parce que nit pour nga bëgg ko il faut nga xam ko ba noppi. looloo tax. Mhm. day dalee ca maam maami siisa. maami yonent ba nga xam ne moo jóge woon Yaman ba pencam sabar tase. Mhm. mu daw ñëw ba Makka. yaayam boot ko da mu jënd kaaba gi. ba Abdul Muttalib ba maamam bañ juddu bañ rob ko. loolu foofa la lay dajeeg yow ba pare nag ne la. lu rafet lii lu taaru lii nga xam ne. Mhm. yàlla ci leeram nga la ko tibbee. tibbee li ci des yëpp ci leeru yonent bi. da nga koy bëgg ci sa xol kontaan ko kontaan ci bàyyi muy wax. ba mu ne boo tëddee géneer yonent bi boo tëddee gént ko te nee na waxtu woo génne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na moom nga gis saytaane mënta jël jëmmam te mbooleem jikkoom yi nga xam ne yi moom lañ doon wax ñun de liñ xam bépp jikko bu ñu nekk li ci yonent bi sallallahu alayhi wa rek gis nañ ko ci moom gis nañ ci tabe gi gis nañ ci taaru gis nañ ci mën teral gan gis nañ ci mën a jéggale gis nañ ci matal kóllëre ak fit na ak fit déet fit mi moom benn la déet fit kay taxawal fit taxawal waaw 63 biñ ne bu kenn julli ji jumaa keroog moom rek moo daagoo fii ba ci jumaa ji ci ci national yëpp te njàmbaar ga waaw xam nga keroog gouverneur bi nga xam ne moo ñëwoon keroog pour jotal li Cissé Dia wax ministre de l'intérieur ne couvre fëla la lu ëpp fukki nit buñ daje fen bàyyi ne keroog bi muy julli ji boobu heure ba jotut te boo foog jàpp na ne waxtu wu séqee tànkam bala war naa tàkk mu kontaan lool parce que day chey mais Cheikh Baye il faut ma defaat rek beneen émission maa ngi fi bët altine il faut ñu amaat beneen plateau maak yow parce que waxtaan wi ci Baye euh, macha allah sa xam-xam mais sa pédagogie di wax lu nit ñi mën a parce que njàmbaar nga tudd euh, ñu ne bu kenn julli ji mu julli ji gaa yaa ngi naa ma 10 minutes euh, mais il ma amaat yow plateau day xool suba lay doon mais ci 5 minutes nga wax ma ci relation Baye radiallahu anhu ak ëttu këri diina ji xajo fi waaye damay dem ci waawoon parce que dama dafa am xusuusee ba am digganteem ak euh, Cheikh Abdoul Aziz Sy. radiyallahu taala anhu ndax. Mhm. relation bi keroog bi ki nga xam ne mooy euh, sëñ Babacar Sy. radiyallahu anhu ba muy ñëw si di jël suñ maam. Mhm. soxna sa kan. maam maam Abdou maam Abdou Alaaji Malick daf koo bindal leetar na ko jaaral ci sa baay Xaaji Malick ànd ak say bokk dem nuyoo ci. Mhm. kon loolu lu yàgg la. waaw moom ci boppam ñëw na fi. yoon moom sëñ Babacar si bàyyi yëg ne ñëw na xaram yafal ak ambaloog bu duuf moom la yónni sëñ Ibra mu fekk ko fa mu toog mu jox ko ko. est-ce que. sëñ Abdoul Aziz Sy. Mhm. al Amin. nettali nañu ne ba mu àndeek shérif ba dem fa nga xam ne fii mooy Tiwaawoon Cheikh Cheikh Cheikh Aboubacar si radiyallahu anhu borom bàkk wi xutbul xaafaqayni dafa génn néegam jox ko cheikhul islam haaj ibrahim macha allah sëñ abdoul aziz si maanaam kafeel gu doxoon seen diggante sëñ abdoul aziz si nee na ma moom ñun ñëpp la ko wax keroog ca grande mosquée ba mu bés ba mu tuddee woon cheikhul islam haaj ibrahim te sëñ maayi teew fa beneen ba sëñ maamun teew fa ma àndoon ak moom nee na keroog keroog la sa ima sëñ maam di firi aman mazaayaw keroog baldaar zawaayaw déet sëñ maahi miyee ko firi imaam xalifa bi la wax baldaar zawaayaw nee na keroog sëñ amin moom la defoon mu ñef mu nekk fa amee mbir ya mais li gën a garaaw Pape mooy euh, bés relation bi dëgër na dëgër goo xam ne sëñ Abdou mës sa jógee ko tiwaawoon dem mbir kilaan ci tànt na fi ca gàmmoom ga lu mooy jaar na ci baay buy dem ak jaar ci baay buy dëpp yoon wi mu ci mujj a fekkee sëriñ bi moo Mawlaay Alxaaj Abdullah dafa nekk néegam mhm. ne buñ ko fëgg yaramam ak tension am ma fekk sëñ Abdou ci buntu kër gi mi ngi sol baxam boobu jiitalee ko lu weex. Mhm. ak etewo nga xam ne dafa am ñaari càkk ak mbaxana mi am njubbal bi. ma nuyu ko mu ne ma ndax sëriñ baa ngi fi alaaji Abdoulaye ma ne ko waaw. mu ne ko wax ko ne ko Abdoul Aziz moo koy laaj. ma fëgg sëriñ bi mu ne mu kan la ma wax ko ko mu ne ma lu xew ma ne ko sëñ Abdoul Aziz si moo ne ci bunt bi mu ma loolu yëkkati ñu ñun ñëpp. keroog xam nga lu mu wax bi ñuy dem ci xabru bi. Mm. daf ne ko laajal kilo oo. bi ma ñëwee ba jub xabru Cheikhul Islam Hadj Ibrahim ne dama koy ziyaare du kenn. suma xel daf na yar dem ci ki nga xam ne mooy waxu Seex Sidi Haaj Maalik ji mu waxoon ne wali yu moog nagu ratt ñoo em da ngay jël doom ji yeew ko ci tànku gannaaw bi mu soog a bàyyi bëtt bi mu fees nga soog a ratt waaye déglu liñ ko tontu waaw mu ne ko man damaa nekk suma néeg ñu ne ma kaay uyu sa baay ma daw ñëw ci ndigal loolu laa ñëwee ci laay ànd ak yow waaye sa digganteeg bàyyi xajuma ci sa digganteeg bàyyi xajuma ci xajuma ci allahu akbar keroog li gën a garaaw nag mooy gannaaw waxtu wi dafa néew dafa am xasida boo xam ne سيدنا عبد المين كو تك سي لوخول جامب يالا بو خامني فان يي لا ديلو غيب نيكاي واخ الحاج بيروم غيسه دا فا بري وون علال نيك ابيجان دي اندي ترانغا سي الحاج عبد بوم فوك ني طالبيم لا بس مو او واتي واو نلن نيانال لن سوما طالبي بي مونوكو سيرين بي دانا واخ امين دي وايي من الحاج ابراهيم نيس موي سوما سيرين مونوكو كوكو بري طالبي li ma ko woy biig yow laa koy jox yaa koy yóbbu allahu akbar keroog kooku lañ teg ci loxoom cheikhul masaayixi fil islaami wa diini wax ko ni ko li ma ko woy yaa nuxbatal ulama dafa wax bëkk néeg bi ne ko indil ma li ma woy cheikhul islam biig nu mu ko commencé yaa nuxbatal ulama kanzal masakini ah dégg nga cheikhul masaayixi fil islaami wa diini allahu akbar sulaalatal qutbi abdillahi waarisahu xalifata cheikhi xaqan doon taxmiini qad istalamtu bima ahdayta lii ah بما, بما أهديت لي كرما لوجه من خلق الإنسان من تين من أخمس وقلانيس وغيرهما تفضلا من منك يا ذا الجود وليني جزاك عني إله العرش غير جزاء بجاه من هديه بجاه من مدحه في سورة النون محمد صفوة الأخيار من مضر أه؟ أه؟ يا شيخنا عند شفيعنا عند يوم hawli yaa siini wadumta fi niamin masxubatin bi salaamatin wa aafiyatin kullal ahaayiini macha allah lii la yëkkati teg ko ci loxo alaaji biram gise ne kooku du sëriñ yow kenn sëriñ yi ñëpp la boo demee joxal ma ko lii kooku semaine bi passé la soog a génn àdduna doomam génnee ko teg ko ci sama loxo matut une semaine ñu ne ma danañ ci waxtaan te gis naa ne xaju fi kon fii lañ koy amee boo demee feneen boo demee Tiwaawoon boo demee Njaasaan boo demee Laayeen ah. foofu rek